juróom-ñeent fukk ak ñeent ñaareelu nafar gi jub ci kaw ngëm asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu yépp mu tëral ngir am jàmm ji wér ak moom ba faaw. am nañu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub tey nag dañuy wéy ci sunu nafar ci xibaaru yonent yi ni ñu ko gise woon li nekk ci mbind yonent yi nettali la nettali bu neex la ci ni yàlla jëfe ci kaw suuf ngir seet te musal doomu aadama yi réer ci biir bàkkaar ci tënk xibaaru yonent yi mooy xibaar bu baax bi wone ni bàkkaarkat yi mën a jube ci kanamu yàlla nettali bi téereb yàlla ëmb am na ndorte ak mujj ni bépp nettali ci sunu njàng mi weesu nafaroon nanu ndorteel nettali bi ba gis ni nit ku jëkk ka di aadama tànne woon topp seytaane bañaaleb yàlla benn bàkkaaru aadama tax askanam bépp juddu ci biir bàkkaar ci kaw yoonu safara am na ñuy fexe weddi loolu naan bàkkaaru aadama jafe-jafeem law moom kese waaye du sunu mbir wante ñiy wax loolu umple nañu mbind yonent yi wax ne bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar wala fi dañuy wax ne musiba du yem ci boppu boroom naka noonu alkaanday bàkkaaru aadama yemul woon ci moom rekk waaye dafa law ci nit ñépp mel ni jàngoro juy walle benn bàkkaaru aadama tax nit ñépp judduwaale jikkoy bàkkaar janax du jur lu dul luy gas te naka noonu itam ñun ñépp a ci sunu maam jikkoom ju bon ji te li wér peng mooy jikkoy bàkkaar bi nekk ci nun dinanu sànk ba faw su fekkoon ne yàlla saafaraalunu ko waaye cant ñeel na yàlla borom bi aji sax ji ndaxte ca bés ba aadama ak awa bàkkaare gisoon nanu yàlla ci njubteem ak yërmandeem ni mu digee wàcce ci kaw suuf ramukat bu jub bi naroon na juddoo cib janq ngir tuur deretam ni sarax su fay boru bàkkaari doomi aadama yi noonu ci sunu gëstu ci téereb linjiil gisoon nañu ci ne bi àpp bi yàlla tëraloon mate wàccee na ki mu dige woon kan mooy musalkat boobu yàlla digge woon mooy nit ku jub ki di yeesu kirist déglu leen ni kàddug yàlla wone wuute wuute bi am ci diggante aadama mi def bàkkaar ak kirist mi deful bàkkaar mbind mi nee na bàkkaaru kenn nit ka tax na dee tàbbi àddina yilif ñépp ni buur waaye jëfu keneen nit ka maanaam yeesu kirist moo ko suul ba tax ñu bari tàbbi ci dund gu bees falu ni ay buur jàddu kenn nit ka moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jubu keneen nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub fa kanam yàlla te am dund gu bees aadama moomu dafa déggadil yàlla ba yóbbaale ñu bari ñu nekki bàkkaarkat noonu itam Yesu Kirist dafa déggal yàlla yóbbaale ñu bari itam ñu jub moom la mbind mi wax ci mbirum ñi bokk ci aadama ak ñi bokk ci Yesu Kirist nun ñépp ci melow aadama lanu juddoo waaye yàlla ngi woo doomi aadama yi ñu judduwaat ci seen biir xol summi melow aadama sol melow Kirist naka la loolu mën a amee ci kaw ngëm rekk mbind mi nee na soo gëmee ci sa xol ne yéesu kirist mi mësula def bàkkaar fayal na la sa say bàkkaar yàlla dina la juddulaat ci laabal sa xol te yeesalaat la ci dooley xel mu sell mi noonu dinga nekk mbindeef mu bees ci kirist te dootuloo dundal sa bopp waaye ki dee te dekki ci sa wàll ngay dundal léegi nag nanu dellusi si ci tawret ngir wéy ci sunu nafar ba fàttaliku ni yàlla jëme woon kanam pexem ngir yónni rammukat bi ci àddina ci suñ njàng yu chronologique yi gisoon nanu ci ñaari doomi aadama yu jëkk ya di kayin ak abel abel gëmoon na li yàlla dige woon ci mbirum ramukat bi naroona ñëw ngir tuur deretam ni sarax waaye kayin gëmu ko yàlla layoo woon na ak kayin ngir mu réccu wante kayin deful lu dul mer rekk ba rey abel rakkam ba mu ko defee gisoon nu ni lu ëpp ci doomu aadama yi toppe woon ci tànki kayin soobu ci bàkkaar ba tax euh, ba nu agsee ci jamonoy nooyin mbind mi nee na coxoru nit réyoon lool ci àddina te fu ñu mën a tollu lu bon rekk lañu daan xënte noonu gisoon nanu ni yàlla dogale far doomi aadama ak mbëndum ndox ma ca jamono ju yàqu te dëng jooja nooyin rekk a gëmoon li yàlla dige woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw naka noonu gisoon nanu ni ko yàlla sante woon mu defar gaal gu rëy gi naroon a nekk rawukaayu njabootam ak bàyyima yu bare diirub téeméeri at yàlla dafa doon muñal bàkkaarkat yi dajek nooyin doon yett gaal ga wante kenn rëccuwul woon bëggam kàdduk yàlla lu dul nooyin ak njabootam kon ca mujj ga yàlla mi sàmm kóllëre defoon na lépp li mu dige woon te far ñépp ñi bañoon na dugg ci gaal gi di rëccukaay gi mu leen waajaloon bu ko defee gisoon nanu it ni sëti nooyin doon fàtte kàdduk yàlla ndànk ndànk ndaxte ñoom itam ay doomi aadama lañu woon di ay bàkkaarkat yi judduwaale naka noonu jàngoon nanu ci mbirum dëkku babel ak ni nit ñi fexe woon boole waa àddina ci benn béréb tabax dëkk bu rëy ak soror bu kawe ngir bañ fu yàlla wante yàlla àttane leen ci limu safaan seen làkk ba tasaare leen ci kaw suuf sépp noonu lanu àgge woon ci nettale bu neex ci mbirum benn yonent mu yonent yàlla ibrahima ci li wóor ibrahima am na place bu am maanaa lool ci pexe mi yàlla rabatoon ngir jot doomu aadama ci nootaangeeg bàkkaar baayu ibrahima xërëmkat la woon te ibrahima moom itam bàkkaarkat la woon ni doomi aadama yépp waaye gisoon nanu yàlla ci yéenem ju rafet ni mu feeñoo woon Ibrahima sant ko mu jóge kër baayam génn réewam yàlla fasoon na yéene def ci Ibrahima xeet wu bees wu ramukat bu sel bi naroon a jaar ba ñëw ci àddina moom lanu jàngoon ci tawret téereb njàlbéen ga saar fukk ak ñaar bi yàlla woowe Ibrahima ne ko jógeel sa réew ci say mbokk ak ci sa kër baay te nga ñëw ci réew mi ma lay won dinaa def ci yow xeet wu yaa di la barkel te màggal saw tur te dinga nekk buntu barke ku la teral ma barkel ko ku la moolu ma alak ko te xeeti àddina yépp dañu dinañu barkeelu ci yow lu taxoon yàlla sant ibrahima mu taxu ci meneen réew lii moo taxoon yàlla dafa façon yéene def ci moom xeet wu bees lu tax yàlla bëggoon a def xeet wu bees ak ibrahima nag ndaxte ci xeet woowu la yàlla façon yéene jaarale euh, yonent yi ak euh, mbind mu sell te ca muj ga ci xeetu Ibrahima woowu la yàlla dogaloon a wàcce ramukatu àddina si loolu moo taxoon yàlla dig Ibrahima ne ko dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci yow ndax yàlla amaloon na li digoon Ibrahima waaw kay ibrahima mi amoon téeméeri at ak saara jabaram ji am juróom ñeent fukki at te musula ëmb gisoon nanu ni leen yàlla joxe doom di isaaxa ni mu ko diggee woon noonu isaaxa jur yankoba te yankoba jur fukki doom ak ñaar ñi sos xeet wu bees wi di israel te yéen ñi xam mbind mu sell mi xam ngeen ne ci xeetu israel la ramokat bi soqi ko ndaxte maryaama mi yaayam sëtu Ibrahima la woon looloo tax aaya bu jëkk bi ci linjiil ne lii mooy cosaanu Yeesu Kirist sëtu Daawuda sëtu Ibrahima lu jëm ci meloom ci àddina Yeesu Kirist ci askanu Ibrahima la jóge waaye ci lu jëm ci xelam mu sell doomu aji kawe ji ndaxte mooy ruuwu yàlla gi bawoo asamaan juddu ci kaw suuf waaye nanu dellu siwaat ci nettalib ibrahima ndaxte am na leneen lu nu war a fàttaliku ci mbiram ni nu ko gise woon ibrahima ci bàkkaar la juddoo ni doomu aadama yépp wante kàddug yàlla dafa nuy won ne tey ji ibrahima nga ci àjjana di jataayu yàlla bu sell bi te foofa lay nekk ba faw léegi nag li nu bëgg xam mooy lii lan la ibrahima defoon ba tax yàlla baal ko ay bàkkaaram àtte ko ni ku jub ba teeru ko ca àjjana lan la mbinn mi wax ci loolu nee na ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni njub ibrahima gëm na yàlla yàlla moom ci boppam ibrahima gëm na li ko yàlla wax looloo tax yàlla jagleel ko njub def ko nit ku jub yow miy déglu tey ndax gëm nga kàddug yàlla ni ko ibrahima gëme woon waxunu ndax gëm nga ne yàlla am na walla ndax yàlla kenn la iblis moom ci boppam sax xam na ne yàlla kenn la li yàlla bëgg mooy nga gëm li mu wax ci mbirum yoonu mucc wi mu tëral ni ko ibrahima gëme woon gisoon nanu ngëmu ibrahima ci nettalib tabaski ndax ku ngeen di ibrahima yëgle woon ca tund woowu tund wu tedd wa bés ba mu rendee xarma ci palaasu doomam ja dafa waxoon ne yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si te gannaaw ba mu rendee xarma mu dalde tudde bërëb booba yewowa yiire muy tekki borom bi dina ko indi lu tax ibrahima tudde woon tund woowu borom bi dina ko indi te fekk yàlla indi woon xarum sarax si ba noppi ndaxte Ibrahima nib yonent dafa doon yëgle li amagul woon te nara ame bi Ibrahima waxee ne borom bi dina ko indi dafa doon yëgle li naroon a xewi ca tund woowa xarmatut wuutu woon doomam ca rendikaay ba dafa doon séentu bés bi ramukat bi naroon a tuur deretam ca tund woowa sax ngir musal képp ko ko gëm ci àtteb yàlla bu jub ndaka noonu ci sunu gëstu ci linjil gisoon nanu ni yéesu kirist ganese àddina daanaka ñaari junni at gannaaw jamonoy ibrahima ak ni mu amale waxu ibrahima ndaxte ca gannaaw yerusalem ca tund woowa ibrahima rende woon xarum tabaski ma foofu la ramukat bi yéesu tuur deretam ngir jot doomi aadama yi te looloo taxoon bi ñu ko daaje ci bant laata muy delloo ruwam yàlla déggoon nanu ni yéesu waxe woon ak kàddu gu dëgër naan lépp mat na lu taxoon yéesu wax lépp mat na waxoon na loolu te deewam ca bant ba matal na pexem mucc mi yàlla yëgle woon bu yàgg jaare ko ci ay yonentam deewug yéesu matal na misaalu xarum tabaski ma ak saraxi mala yépp yow miy déglu tey ndax gëm nga ne yeesu kirist ci boppam mooy xarum tabaski mu mat mi te mujj te yàlla wàcce woon ko ndax bokk nga ak ibrahima ngëmam déglu leen li linjiil wax ci mbirum ngëmu ibrahima mu ne sunu maam ibrahima nu mbiram tëdd bu fekkonte ne ibrahima ci kaw yi jëfam la ko yàlla àtte ni ku jub kon am na lu mu ci mën a damoo waaye demewul noonu ci kanamu yàlla lan la mbind mi wax ci loolu nee na ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni njub moo tax yàlla jagleel na ibrahima njub waaye loolu lañu bind ne yàlla jagleel na ko njub du ibrahima rek a moom wax ji nun itam ci wax jooju lanu bokk te yàlla dina nu jagleel njub nun ñi gëm yàlla mi dekkal yéesu sunu boroom ndaxte yàlla jébbale na ko ngir sunuy tooñ tekkal ko ngir àttenu jub amin nu ngi leen di gërëm ci déglu bi te fas yéene tasewaat ak yéen émission bi ñëw ndegam neex na yàlla danu fas yéene jëm kanam ci sunu nafaru xebaaru yonent yi ba gis beneen yonent bu mag bu yàlla tànn ngir waajal dikku musalkatu àddina si yonent boobu mooy Muusa su fekkee ne am ngeen laaj ci lu ñu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax bi mu naan Ibrahima gëm na yàlla te yàlla jàppe ngëmam ni njub